di sëriñ Seex Anta Mbàkke moom sëriñ Mahamadou Modou moom sëriñ Modou Mamoun moom sëriñ Gaawaan waaye tam di siyaare bu baax a baax sunu jëwriñ ci bërëb bii di sëriñ Fallou Gala Silla waaye itam di siyaare bu baax sëriñ Mour Abib Thiam mi nga xam ne moo nekk ci machine bi ak itam mbokkitaab yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci bërëb bu tedd bii di Assalaamy FM 99 point 0 Touba seen émission bii ñu baaxoo def di maktabatu cheikhul xadim radiallahu anhu di émission boo xam ne ngi déglu am na ab diir ba ñu ko dooree ba léegi waaye mu mel ni bërëb bi daa nekkoon ci ay yeesalaat ndax ku ne xam na ñu ngi woon fee ci Touba gar bu ndaw lu jiitu ñuy ñëw fii waaye mu mel loolu lépp rek ay liggéey la woon ngir bëgg bërëb bi gën a daaru salaame comme ni mu wuyuwoo gën a mucc ayib gën a sell alhamdulilahi rabbil alamin yal na yàlla xeeb dool di ñëw tey ci mawdu boo xam ne jamono da ko ittiwoo saa su ne ndax mooy li munta ñàkk ci ab jullit ndax dañuy wax ne maktab moom émission la boo xam ne dañuy tàmbalee ci njàngaleem sëriñtu ba yem ci njàngaleem sëriñtu ba waaye lépp lu ñuy wax tem bàyyi ci keneen maanaam beneen boroom xam-xam bu ñu xam suba itam boroom xam-xam boobee day nekk boroom xam-xam boo xam ne baa day nekk jàngalekat boo xam ne am njàngaleem dafay dëppoog njàngaleem sëriñ bi waaye itam day doon koo xam ne sëriñ tubaax daf ñoo jox ndigal ci jëfandikoo mbiram nin ko faral di waxee di wax ne ñett yi ci lañuy tënku mooy mazhabu imam Malik ak tasawuful Junaydi ak xaqiidatu asxari kon képp koo xam ne dugg nga ca biir ñooña rek loola day nekk loo xam ne daañ ci dëppoo ak njàngaleem Serigne Touba thème bii ñu bëgg waxtaane tey nag muy thème boo xam ne jamono du ko du ko ñàkk soxla mukk waaye ab jullit itam du ko ñàkk soxla mukk ndax mooy lii tax nit ki mën a jariñoo la muy jaamoo yàlla waaye tam mooy tax li tax nit ki di mën làq ngërëmal boroomam waaye mooy tax li tax nit ki di mën a làq ngërëmal ab sëriñam waaye tam mooy tax li tax li tax ab doom di mën a làq ngërëmal ñaari waajuram waaye tam mooy mooy mooy li tax soxna di mën a làq ngërëmal boroom këram waaye tam mooy li tax euh, ab liggéeykat di mën a làq ngërëmal ka koy jàngal la muy liggéey loola mooy ay teggin kon suñu waxtaan tey mi ngi jëm ci waxtaane ay teggin teggin nag day mel ni li Sëriñ Tuubaa wax ne teggin day xaw naa xaw naa nekk sax li ñuy wax solo su diin solo su diin mooy bu ñu xaajoon diina ñetti xaaj day mel ni benn xaaj ba xaw naa nekk ay teggin teggin nag day mel ni sunu boroom subhaanahu wa taala mooy ki ko njëkk a jàngal ña àndoon ak sang bu tedd ba te mooy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ña mu àndaloon di saabatu rasul ñoom ñoom la suñu boroom njëkk a jàngal ay teggin te ku xam ne ne ñooñu day di saaba yooyu nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu def na ay joxoñ ba tàyyi ci ñoom di wane seenug màggaay di wane seenug am daraja di wane seen tedd nga di wane seenub cër ci suñ borom subhaanahu wa taala waaye téewut la tax ñu mën a am loola mën a làq ngërëmal yàlla mën a làq ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi mooy suñ boroom dafa leen a jàngal nan la ñuy àndee kii ba mën a làq ngërëmal yàlla ak ba mën a làq ngërëmal seen boroom subhaanahu wa taala saxaaba yooyu nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na waxoon na ne ñooy seen baay ci diine maanaam saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine nga xam ne li leen Sëriñ Tuubaa tagge ci xasida yi tagg wu ci nekk jikko la tagg wu ci nekk melo la tagg wu ci tagg wu ci nekk jëf la joo xam ne ab jullit mën na cee sukkandiku jaamoo ko yàlla ba ak dundam jeex te lam cee sukkandikoo ca kookee du jeex mukk nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne képp koo xam ne danga sóobu jëm ci yàlla kookee comme mën a doon saaba yi ñoo la féete kaw laka sukkur wa taamidu yaa xayra maaliki ala man lahu saabun alaw kulla saalik ba muy delloo boroom ak cant ak njukkeel ak njukkal di di di jëm di wax ci ka nga xam ne nee na àndandoom ya ñoo kawe képp koo xam ne soobu nga jëm ci suñu boroom subhaanahu wa taala kon ñoo ñi di ay nit ñu tedd ñoo xam ne seen jëf kenn mënatu leen a jot ci jamono ban doon jëfee donte nit mën naa jëf ba jëf la ëpp lañ doon jëf ci xeetu jaamu yàlla waaye nit mënatut a jëf nag ba jëf ci jamono bañ doon jëfe ñoom saaba yooyu kon saaba yooyu la ñuy tedd tedd la ñuy màgg-màgg la tax ñu mën a am daraja jooji mooy dan ko danoo jaamu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa te teg ko ci ay teg teggin teggin yooyu nag ki leen ko jàngal mooy seen boroom sun boroom subhaanahu wa taala kon teggin yooyu ci lañ fas yéene ànd ak yéen tey kon mu mel ni xëy na bu ñu demee ba ci kanam incha allah daañu ubbi ligne bi ci 33 943 vingt 28 ngir ñoo xam ne ñu ngi déglu te fas yéene tàbbi ci émission bi ñu mën cee jaare ñu mën a jokk ak ñoom ci 33 943 48 28 kon suñu borom subhaanahu wa taala jàngal sahaaba yi ni ñu war a ànde kii di yonent bi sallallahu alayhi bu delluwaatee ci alxuraan nga xam ne lépp loo xam ne rek lu ab jullit war a xam la ci ak dundiinam ci ni mu war a dundee ci àddina ba ba muy delluwaat ci boromam suñu borom jàngal na ko loolu ci téere bu tedd bi suñu boroom waxoon na leen yaa ayuha allazina aamanu laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajaaru lahu bilxawli ka jaari baadikum li baadin an taabata amalukum wa antum la tasxurun nga xam ne dafay wane ne nit day wala yeen ñi nga xam ne day yéen a gëm yàlla suñ ne nag ñi gëm yàlla benn jullit waru cee wërta def istisna maana waru cee settee waru cee waru cee génnee boppam ndax gannaaw gëm na yàlla gëm yonent bi rek kon la ñuy wax kon maa nga ca biir kon lam ciy déggee mooy la suñu borom subhaanahu wa taala digaloon saaba ñu ànd ko yonent bi sallallahu alayhi wa moom itam loolu la ko yàlla digal ngir mu war a ko moom ngir mu war ko àndee kañuy wax kilifaam baa ka ñuy wax ab sëriñam baa ka ñuy wax boroom xam-xam la ci moom boo xam ne kilifa lay taxawee ci moom ndax al ulamaaw warasatul anbiya kon la nga ciy déggee mooy kon waruma yëkkati sama kàddu ndax suñ borom loolu la tere saaba yi bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi sallallahu alayhi maanaam bum wax mukk ngeen jël seeni wax teg ko ci kaw waxam wala ngeen di yëkkati seen kàddu muy gën a bir muy muy gën a kawe kàddoom amaana loolu day bu ngeen koy def man ngeen a yàq seen jëf yi ngeen di jëf jëmale ko ci seen boroom jëf joojee mën naa yàqu te du ngeen ko yëg mën naa yàqu te du ngeen ko yëg te la tax seen jëf jooju di yàqu te du ngeen ko yëg mooy ñàkk a jox worma ak ñàkk ami teggin ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loola la ci ab jullit war a déggee mooy kilifa gi ma yàlla booleel muy sama sëriñ baa muy ku may jox xam-xam baa muy sama waajuru góor baa waajuru jigéen baa muy sama kilifa daal su dee wax danaa ne teg di ko déglu waaye itam su ma ko dee tontu duma jël samay kàddu muy gën a kawe ay kàddoom baa muy wax may suufeel ay kàddoom di kaweel samay kàddu ci kaw ay waxam kon loolu la ci ab jullit war a dégg waaye tam suñ boroom subhaanahu wa taala mësta dañ di jàngal saaba yi teg yi ni ñu war a àndee ak yonent bi sallallahu alayhi ba tax yamut ak ñoom foofu waxoon na leen sax ne bu ngeen dee dugg cim néegam nangeen di yëglu yaa ayyuha allazina amanu laa tadxulu buyuuta nabi illa an yuzana lakum ila taamin xayri nazirin ineew walakin ida duitum fadxulu fa ida taimtum fantasiru wala mustaanisin li hadis inna dalikum kaana yunsi nabi fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alxaq nga xam ne dafay jox ndigal saxaaba yi ngir ñu bañ a tabbi ci néego yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne danoo yëglu lu dul ne danoo yëglu te itam loolu am njàngale la moo xam ne incha allah bu ci kanamee daañu ñëw ci istisaan te mooy yëglu gi war a dox diggante nit ki su dee tàbbi ci néeg boo xam ne euh, du néegam nam war a yëgloo ak nam ci war a tàbbee ci àddise ci ñëw ak ni ko sëriñ bi jàngalee waaye loolu suñu borom subhaanahu wa taala moo ko njëkk a diggal moo ko njëkk diggal saaba yi ngir bu ñuy tàbbi ci néegu yonte bi sallallahu ñu yëglu bu ñu yëgloo bañ jox leen ndigal ñu doog a tàbbi te saa su leen woowee ci ñu war a ànd ak moom xéewlu bu nu xéewloo ba pare nag nañu gën dem tasaaroo waaye bu ñu toog ci kanam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di wettili ko waxtaan ci moom ndax loolu day dafa leeni dafay lor yonente bi te amaana mu am kersa ci ñoom ba du leen ko mën a wax waaye suñ borom subhanahu wa taala moom amul kersa ci wax li mu war a wax ba def li mu war a def kon loolu ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñaari aaya yi doy na tegtal sëkk ci ni nit war a ak kilifaam ci xeetu nam war a waxeek moom waaye tam ci xeetu nam war a ànd moom waaye tam nga xam ne suñ boroom tere woon na leen sax ne ñi nga xam ne day dañuy ñëw ci ci ginnaaw fenêtre yonent bi sallallahu alayhi wa wala ginnaaw ay buntam rek di ko wax naan ko génnal génnal àtte ñu baa génnal wax ak ba baa génnal nangam di ko di ko di ko jollu mbeeru maanaam di ñëw ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam tollu ca buntu kër ga naa ko yaa Muhammad aaruj génnal nangam génnal ñëw def nangam ba génnal ñëw waxal ñu nangam suñu mboom daf leen a tere woon loolu yi daane ñooñu day ñu ëpp ci ñoom ñiy def loolu amuñu xel bu nu amoon xel duñ def lool ana lu teewoon ngeen muñ walaw annahum sabaru xatta taaruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu xafurun rahim ni nga xam ne ñun ñii di ay taalibe Sëñ Tuubaa kenn ku bàyyi koo woon sa kër dem sa kërub sëriñ di ko seet boo ñëwee buñ nee la kilifa gi day dafa fatu ba daa jàpp la ngay def mooy dangay ngay fas yéene toog xaar ko ba mu génn nga door ko ziyaara baa nga door ko wax sa soxla baa nga doog a sàkk ci moom ñaan waaye xalaatoo mukk di di fëgg ay buntam baa di fëgg ay fenêtram ngir di ko ngir ngir ngir mu ñëw ci yow loolu nag day mel ni loolu yi saaba yi suñu borom subhanahu wa moo leen ko jàngaloon si ni ñu war a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki jullit yi kon noonu la ko yàlla jàngale saaba yi ngir ñu war koo ak yonent bi sallallahu alayhi waaye loolu kat lu ñu war a roye ci ñoom la ndax wax naa léegi ci sama biiri wax ne Sëriñ nee nañu saaba yi ñooy seeni baay ca diine te lépp lu mu leen tagge moom sëriñ bi tagg woowee melo la tagg woowee jëf la tagg woowee ay wax la waaye buñ xoolee teggin nag day mel ni teggin ñaari xaaj la teggin ñaari xaaj la xam naa sax ci benn xaaj bi lañuy ñëw tey li ñuy wax al adabul baatin wal adabu zahir ni ko sëñ wa waxee ci njàngaleem mu tedd moom mi ci téere mu tedd boobu masaalikul jinaan wa huwa xismayni lada daymaani adabu zahirin maa al wa adabul baatini maa rabbil wara wa yatba'u baatina maa xad zaara nee na rek bu nu ci njàngaleem ad daymaan nga xam ne am njàngaleem la doon dajale ci téere boobu yi day wax ne teggin ñaari xaaj la teggini ñaari xaaj la benn bi mooy teggini baatin adabul zahir mooy teggini feeñ adabul baatin mooy teggini nëbbu adabul zahir mooy teggin yi nga xam ne moo dox sa diggante ak nit ñi ci ni nga war a jëfe ci nit ñi ni nga war a ànd ñoom ni nga war a waxee ñoom ni nga war a jëflante ak ñoom ni nga war a toogee ak ñoom ni nga war daal maslaa ak ñoom ci saw dundin ak ñoom loolu mooy al adabu batin mal insan al adabu zahir mal insan wa adabul batin nag mooy teggin yi dox nag sa diggante ak rabbul wara mooy boroom mbindeef yi teggin yooyee nag mooy teggini batin xam naa incha allah buñ fi yàlla bàyyee mooy doon suñu ñaareelu waxtaan incha allah ndax tey dañuy jël rek teggin yi al adabu zahir kon teggin dox sa diggante ak doomu aadama yi mooy teggin yi zahir waxoon nañ léegi ci tàmbali waxtaan wi ne teggin bu delluwaatee ci njàngaleem sëriñ bi day wax ne bi anna xayra ma fihi daana fata talaazumal adabi aysuma ata liannahu bihi ila arrahmani yasillu abdan wa ila aljinaani fa kullu man bi xayrihi raama wasul li la nabil mu mel ni teggin day li nga xam ne moom la nit ki di waaje baa mooy li nit ki di dolli ko baa mooy li nga xam ne mooy taaral nit ki nee na teggin mooy nit ki war a taqoo bërëb bu mën a bàyyi ko rek daa war a ay teggin ndax neen teggin day mooy li nga xam ne dafay jokkale jaam bi ak boroomam waaye itam teggin mooy li nga xam ne dafay jël nit ki jëme ko aljana nee sa képp koo xam ne sàkku nga topp yàlla te tegoo ko ci ay teggin nee na kooki day maanaam ku ñàkkum xel la maanaam ku ñàkkum xel la maanaam di jaamu yàlla te ni ngay jaamoo yàlla tegoo ko ci ay teggin nee na kooki am xel mu amu ca dara maanaam ku ku ku ku dese nga koo xam ne ànd sam xel mu ne na nataxu bi annahu kaada yakun sulusi diini fa fadluhu yabin may demel ni li ñu waxoon léegi ci tàmbali gi muy wax ji ne teggin day xaw naa nekk sax li ñuy wax su diin kaada maanaam xaw naa nekk bu ñu xaajoon diine ñetti xaaj benn xaaj ba lépp xaw naa nekk ay teggin nga xam ne lii ñuy wax mooy importance su ay ci li ñuy wax nii mooy fi ñu tàmbalee ba fi ñu toll nii mooy importance ay teggin maanaam solo si ay teggin am ci la ñu nekk nga xam ne xam-xam li muy am am solo xam-xam li muy bari bari njariñ Assalaamy FM bu fekkee àndut ay teggin xam-xam boobee amut benn solo loolu Sëñ Tuubaa wax nee na bari xam-xam te amoo ay teggin nee na xam-xam boobee day daf lay bijjal jëmale ci ay lor ak ay coono fakasatul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal aza wa taabi. 99 fois xam-xam lu mu bari bari te xam-xam bi tegoo ko ci ay teggin nee na xam-xam boobu daf lay bijjal jëmale ci ay ay lor ak ay coono nga xam ne nee na képp koo xam ne sakkoo ngaa topp yàlla maanaam da ngaa jóg ngir topp yàlla te ni ngay toppee yàlla tegoo ko ci ay teggin yu mu làmboo. nee na kooki day dees na ko xañ ay njariñ waaye itam dees na ko xañ ak texe ak texe ak àddina ak alaaxira is kullu man bi xayrihi raamati baa fa inna yoramu fawzan wa intifaa nee na teggin day bu fekkee am na luñ ne lu lu gën la ci àddina ak alaaxira mooy ay teggin waaye tam mooy tedd nga ji gën a tedd moom teggin wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru mataza bihi soo izzi maanaam li gën ci àddina ak àllaaxira mooy ay teggin ndax àddina boo fi nekkee yaa ngi fi jaamu yàlla te jaamu yàlla googi bu fekkee tegoo ko ci ay teggin du la amal benn solo du la amal benn njariñ kon ngir nga mën a jariñoo jaamu yàlla goog yi faw mu ànd ak ay teggin kon jaamu yàlla gi ngir mu mën laa jariñ ëllëg nga mën cee làq ngërëmal yàlla su borom mën cee sukkandiku dugale aljanna ci yërmandeem faw mu ànd ak ay teggin bu fekkee ànd ak i teggin rek jaamu yàlla googee du la amal benn solo du la amal benn njariñ te itam mooy li gën ci tedd nga moom moom ay teggin li annahu munawirul jinaani li annahu munawirul janaani kama yuqaribu ilal jinaani neen teggin day dafay leeral xol nit ki ab xolam dafay lëndëm léeg-léeg ba du sawar ci jaamu yàlla waaye te ab xolom léeg dafay leer ba day sawar lool ci jóg jëm ci jaamu yàlla nga xam ne ab xolam iblis muuru ko ab xolam dafa leer ba day sawar lool ci jëf lu baax ba wax ko ba jëm ca nee na xol boobu nag ay teggin daf koy leeral ba mu leer waaye itam teggin dafay jegeel nit ki aljanna maanaam teggin dafay jegeel nit ki aljanna comme comme ni nga xam ne itam noonu la koy soreel soreel sawara mooy wa yujibul matxa ladal jiiraani kama yubaxidu ani niiraani day waral teggin moom nit ki ay dëkkandoom dañu koy tagg. juróom-ñeent fukk ay dëkkandoom dañ koy tagg. waaye itam ni ko ay dëkkandoom di taggee noonu itam la ko suñu borom subhaanahu wa taala di soreele sawara xam ngeen léeg-léeg nit dëkk ci ab koñ nekkee fa nekkin woo xam ne nekkin wu doy waar la. Assalaamy FM. ci ci ñàkk teggin ci ay dëkkandoom ci wax ak ci jëf. ak ñaawal lool ci ñoom. Assalaamy kooku saa su saa su saa su takkoon ni bagaasam fas yéenee tuxu ay dëkkandoo dañuy sant yàlla lool ci tuxu gi muy tuxu moom waa ji. ngir lan ngir néewi teggin ngir ñàkk teggin gim nekkee ak ñoom waaye saa soo xam ne waa ji dafa dëkk ci koñ bi baax lool ami teggin lool wax waxiinam jëfiinam do doxiinam diggante mag nit ñi lépp daf koo teg ci ay teggin kooki de saasu pare woon ngir tuxu ca koñ ba ñenn ca waa koñ ba ñu bëgg lu baax ñëpp daañu am loolu naqari lool ba mën nañoo àgg sax di tur ay rongoñ ngir jëmm ji di jóge ci koñ bi di dem feneen la loola mooy tegginam yu rafet yoo xam ne nekkoon na ak ak i dëkkandoo kon moo tax teggin dafay waral aw tagg ci say dëkkandoo kon lu mat bàyyi xel la mbokk yi teggin nag Sëñ Tuubaa daf koo lim ci masalik ne fa udda min zaahirihi xusnu lxuluq wa misluhu alayaawu fa saayi tafux mu ne day mel ni ci teggin yi ñu wax léegi ci tàmbali gi mooy al zaahir nee teggi ndey yi feeñ ci moom bokk na ca li ñuy wax xusnul xulux xusnul xulux mooy jikko joo xam ne jikko ju tedd la mbokk yi jikko day yonent bi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne ku tedd la ci jëmm ku tedd la ci askan ci ndey ak ci baay ba cay maamam waaye ku tedd la ci fànn yépp waaye ba ko suñ boroom subhaanahu wa taala di tagg daf koo taggee jikko ju tëdd wa innaka la ala xuluqin azimin daf koo taggee jikko la ko taggee waaye taggewu ko baay bu baax baa waay baa yaay ju baax baa ay maam yu baax daf koo taggee ci jikko joo xam ne jikko ju tëdd la ndax Sëriñ Tuubaa bokk na ci ay ñaanam ñaan yàlla jikko ju tedd wa ablana makaarimal axlaaq waaye yonent bi salaa salaam waxoon na ne ci andis boo xam ne ibnu amar moo ko nettali ci lañ ko ci lañ ko soloo ab sayxaani nettali nañ ko mu ngi xayaarakum aasinakum axlaaqa maanaam ki gën a rafet jikko ci yéen mooy ki gën a nekk tànneef ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ci yéen kon jikko ju tedd jooji bokk na ci ay teggin te yonent bi sallallahu alayhi wa bu màgg yonent yonent gu màgg gi ko yàlla joxoon yonent gi li muy màgg màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sama yonent gi daal li muy màgg màgg weesuwul rek ñëw ngeen mottali jikko yu tedd yi bu'istu li utammima makaarim makaarimal axlaax nga xam ne moom dafa ñëw rekk ngir jikko yi nga xam ne ay jikko la yu yu manki ci ñenn ñi jikko yooyee la ñëwoon ngir mottali ko kon jikko yu tedd yooyu dafa bokk ci li nga xam ne mooy ay ay teggin waaye tam mu lim ci alxayaaw te mooy kersa ko ne xam na ne kersa day yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa waxoon ne alxayaaw laa illa bi xayri nee na kersa daal lu mën a am du andil nit ki lu dul aw yiw nee na kersa daal lu mën a am munta andil nit ki lu dul aw yiw waaye tam alxayaaw min al imaani ibnu omar moo ko nettali mu ne indib ne woon na kersa mi ngi bokk ci gëm yàlla nga xam ne nit ki lu luñ mën a xam ci moom ak lu mu mën a am rek bu nu xamee ci moom néew kersa te néew kersa rek weesuwul ñàkk teggin su boobaa lépp lu mën a am loola doon na mbir moo xam ne maanaam du saf kenn du ittiwoo kenn kenn du ko ittiwoo kon kersa itam lu am solo la loo xam ne lim nan ko ci ay ci ay teggin mbokk yi bokk na ci ay teggin yi nga xam ne al adabu zahir ci lay dugg mooy li ñuy wax atayaamun maanaam mooy nit ki di jëfandikoo ab ndey jooram nit ki di jëfandikoo ab ndey jëfandikoo sab ndey joor ci booy lekk waaye itam jëfandikoo sab ndey joor ci booy naan jëfandikoo sab ndeyjoor ci lépp loo xam ne looy jël la nga di ko jëfandikoo ci sab ndeyjoor loolu bokk na ci ay teggin bu demee ci addis daañu fekk addis boo xam ne mi ngi bàyyi ko woon ci Malik jaar ci ibnu ibnu Shaab jaa ci ibnu anas ibnu malik muy anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ataa bi labanin xasiba bi maai min albihri wa an yaminihi arabiyu wa an yasaarihi abu bakrin sadiq radiallahu anhu fa sariba suma aata al arabiyu wa qaala fal ayman bil aymani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mas a toog bis ñu andil ko ñu andil ko soow moo xam ne dañu ko dañu ko jaxase ak ak ndoxum teen nee na ci ci ndeyjooram moom yonent bi sallallahu alayhi benn araab yi moo ci toog araab yi buñ ko waxee mooy koo xam ne nitu kaw kaw la rek ku bàyyi ko woon ci àll ba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne gan la ci moom waaye itam ci neen ko xame nitu kaw kaw la waaye nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr Sadiq mi ngi ci wetu càmmooñam nee na bi yonent bi naanee ba pare li des ci ndox mi daf koo jël jox ko aaraabi bi mu naan xëy na loolu mën naa jaaxal ku xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Aboubacar seen diggante ni mel mu jëfandikoo noonu yi mën naa jaaxal ku xamut waaye yonent bi sallallahu alayhi moom daa danoon koo xam ne lépp lu masaa def ba lépp lu masaa wax dana ko leeral saxaaba yi bañ xam li tax mu def ko moo xam moo ko leeral ci coobareem walla saxaaba yi ñoo ko laaj ci seen coobare dana leen ko leeralal bi mu defee lu daa wax ne barke day dafa nekk ci ndeyjoor daan barke mi ngi ci ndeyjoor ndax ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam diggante ma Abu Bakar nga xam ne ne woon na su fekkoon danaa am ku may jàppee xarit kon Abu Bakar laay jàppee xarit bu fekkoon ne am naa kuñ naan diw sama xarit la kon Abu Bakar laay jàppee xarit waaye nit yàlla yi ñoom muy yonent bi ak ku mel ni sëriñ bu tedd bii di sëriñ Tuubaa yàlla wu ñoom lañuy ñuy xaritoog nit mooy di ko laabire ci digganteem ak boroomam di fexe nit ñi di tege ci yoon woo xam ne yoonu texe la yoonu mucc la tey ak ëllëg loolu lañ séq képp ku yàlla bind waaye mu ne bu fekkoon damay am xarit kon Abubakar moo nekk sama xarit kon li muy màgg màgg ci moom téewul mu jox ki nekk ci loxo ndeyjooram muy axraabi bi nga xam ne keroog ba muy gàddaayee màkka jëm madinatu munawwara moom la àndaloon ca xunti ma waaye tam mooy ki nga xam ne keroog bi mu tëlee ci mën a jiite julli tawat ji ko war yóbbu sonal ko la jox ndigal mu jiite jullit yi waaye tam abubakar moom la yonti waxoon asaan ibnu saabit ne ko ndax wax nga dara ci Aboubacar maam ndax ndax ndax woy nga dara ci moom moom Assane mu ne ko waaw mu ne ko loo wax ci moom waxal ma dégg mu ne ko dama wax ne wa saani yasnayn fi lxaari lmaniifi wa qad taafala aduw bihi is yasxada aljabala wa kaana ibu rasulillahi qad alimu min albariyati islam yaadil bi aada mu damaa wax ci moom ne moom day mooy ki nga xam ne moo ñaareeloon ñaar ña ca xunti ma maanaam moo ñaareeloon ñaar ña yàlla ak yonent ca xunti ma mooy ki nga xam ne moom la noonu yàlla yi doon wër ak yonent bi yéeg ci doj yi di ko wër waaye mooy ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon bëgg goo xam ne yemalewu ko ak menn mi waaye li muy màgg-màgg ci moom keroog bi mu naanee pare dafa jël ndox ma des wa jox ko aaraabi bi ngir moo ko féete ndeyjoor kon jëfandikoo sab ndeyjoor mi ngi bokk ci ay teggin waaye tam waxoon itam moom yent bi ne isa akala aadakum falyaakul bi yamini wal yasrib bi yamini fa inna saytaana yaakul bi simaalihi wa yasrabu bi simaalihi mu ne bu ngeen dee lekk bu ngeen dee lekk na ngeen di lekkee seenub ndeyjoor ndax noonu yàlla bii di iblis day ab càmmooñam moom lay naane waaye tam ab càmmooñam moom lay lekke moom iblis te kon a xam ne ne ibliis mooy noonub doomu aadama inna seytaana lakum adwa fattaxisu adwa kon moom mooy ki nga xam ne itteem lu dara lu rek xëcc nit ñi jëme leen sawara kon moom moom nga xam ne du jëfandikoo lenn lu baax lépp lu muy jëfandikoo mi ngi koy jëfandikoo ci ab càmmooñam kon moo tax jëfandikoo sab càmmoñ mi ngi bokk ci ak ñàkk teggin kon loolu moo bàyyi xel la waaye tam bokk na ci ay teggin mooy nit ki di wax bismillah maanaam nit ki li muy jëfandikoo moo xam day lekk moo xam day naan moo xam day ànd ak soxnaam moo xam day toog fi bërëb moo xam day dugg fu ci bërëb moo xam day jël dara mu koy tàmbalee ci bismillah wax nañu Serigne Touba fan yi néew yi am ak Serigne Chouaïbou bu anhu doon na ko yar ci lépp lum lépp lum jël mu ne ko booy jël booy jël nangam del wax bismillah kon di wax bismillah loolu bokk na ci li nga xam ne ay teggin la mu ngi bokk ci adabu adabu zahir waaye itam bokk na ci ay teggin mooy nit ki nga xam ne ay teggin la ba pare bokk ci teggini ak la maanaam mooy nit ki su lekkee ba pare muy soccu maanaam soccu ci jëfandikoo socc boo xam ne bant la wala dafa jëfandikoo ndox li ñuy wax gàllaxndiku su paree naan ko wann ko loolu yi mi ngi bokk ci ay teggin waaye itam fedd leen ko ba tey moom soccu ci bokk ci ay teggin maanaam booy julli balaa ngaa julli nga socc nga xam ne yonent bi sallallahu waxoon na ne su fekkoon su fekkoon ne bañaluma samay sama xeet ab coona kon danaa leen digal balaa ñëw julli ñu soccu wala saa su ñuy socc loolu yonent bi waxoon na ko ku fekkoon ne bañaluma sama xeet ab coona kon danaa leen digal balaa ñëw julli balaa ñoo taxaw buñ buñ taxaw balaa ñoo julli ñu soccu waaye itam saa suñuy jàpp ñu socc nee na bañ guma leen bañal ab coono moo tax digalu digaluma leen ko ndax xëy na amaana bu ñu ko digaloon mu doon loo xam ne day doon waajib ci ñun amaana ni julli jege ak ni jàpp ni jàpp jege amaana boobaa mu doon mu doon ab coona nee na coono boobu laa laa leen bañal moo tax digaluma leen waaye kon naa leen ko digal waaye nan xam ne kon nag ku ko mën na koy def di ko dundale sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di ko jëfandikoo ngir ne ay teggin la waaye itam mbokk yi bokk na ci ay ay teggin mooy li ñuy wax al musaafa ak jokk ab nuyoo ak tabe kasa musaafaatu wa tilaawa ifsaawuka salaam wa saqaawa nga xam ne digal nañ ñaari góor saa suñu nuyoo ba joxante ay loxo ñu saafaante joxante seeni loxo bu dëgër ba kenn ku ci nekk yëg ci sa moroom ne góor yàlla moo la nuyu waaye nuyoo boo xam ne dóorantey loxo rek kenn ku ne dem loolu bokkul ci ay teggin kon dëgëral sa loxo ci sa loxol moroomum góor loolu mi ngi bokk ci ay teggin mooy musaafaa waaye itam fexe ba fexe ba jàng am xam-xam loolu itam nañu xam ne bokk na ci ay teggin waaye itam ko ab nuyoo jokk ab nuyoo boo rombee nit nga nuyu ko waaye nit ñi fi jamono toll daa mel ni nuyoo dañ koo bëgg léegi dugal ci mbirum ku ma xam ak ku ma xamut maanaam nit ñi am na ñoo xam ne kun xam kese la ñuy nuyu benn ngay seen mbokk mun njubool wala ngay seen dëkkandoo bun xam wala daal ngay kun xam ñu xam ne yow mii diw sàngam nga tudd nangam nga sant jóob nga sant wala sekk wala géey wala njaay wala caam ñu door laa jaar ci saw sant ci noonu lañ aje nuyoo léegi te jullit nag saa su rombee moroomu jullitam war na ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah moom itam mu delloo ko nuyoo waaleykum salaam wa rahmatullah fu bu jàllee rek nga jàll ba àgg ci waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu loolu ajiwut ci kuñ ne kii euh, da koo xam wala da koo xamut nit ki ki nga xam dang nga ko war a nuyu ki nga xamut da nga koo war a nuyu te la jiitu ci nuyoo yooyu nag mooy nga ñaanal ko jàmm ak yërmaane ak barke te loola mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mu delloo la ko aara ja door ca topp mooy euh, sekk ak géy ak njaay ak jóob ak faal ak silla ko loolu ñu bàyyi ci xel baax a baax waaye itam ñuy tabe ñu tabe ci sunuy sunu njaboot tabe ci sunuy mbokki jullit loolu itam bokk na ci ay teggin ndax ku tabe dañu koy jegeel aljanna waaye dem dañ koy soril sawara kon tabe jikko ju am solo la lu mot a bàyyi xel la nga xam ne ci loolu ñu wax ci saafoonte boobu bu ñu demee suñ tuwaa day wax ne waaye suma saafaxtu fa makkini yumnaaka min yumnaahu bil mustaasani wala takun naasiha ata yakun huwa alladi bada bi nafsi xaryabin iskariu ixtilaafa aydi fi salaam bi suratin wa misluhu tarku kalaam summa almusaafaatu bilyadayni min jumlati al aadaabi misla zeyni watu lahu anka bi xayrin yaa labib fa innahu mimma yukafiru zunub nga xam ne ñaar ñi saafaante li leen digal te mbokk ci ay teggin mooy kenn ku ci nekk dëgëral sab loxo nday jooram ci ci ci moroomam ci def ko defin wu rafet nag nga xam ne kenn bum nee na bul tàmbalee nocc sab sa loxo li fekk ki ngay nuyu moom tàmbali naa nocc loxoom ci lu bër nga doog a tàmbalee nocc sa loxo waaye neen sib nañ rek nuyoonte loxo gaaw rocci ko neen loolu luñ sib la kon ñaari góor bu nuyoo dañoo war a dëgëran ay loxo ndax loolu dafa bokk ci ay teggin waaye tam ay nit bu nuyoo nañuy ñaanalante aw yiw loolu dañuy wax ne nit ki soo ko nuyoo ngir ñaanalante aw yiw wala ngeen nuyoo jàmm sante loolu day taxaw taxawaayu sarax ci yéen ñaar ñi nga xam ne dangeen ngeen di nuyoonte ngeen ñaanalante aw yiw waaye tam bu ngeen nuyoo ngeen saafaante ngeen jàmm sante loolu jàmm sante boobu ak ak musaafaa boobu dafay taxaw taxawaayu taxawaayu sarax kon loo ñu bàyyi xel baax a baax. nga xam ne nuyoo sax bu ñu delloo ci euh, ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn yi nga xam ne àq la ju dox ci diggante jullit ak moroomam yonent bi lim na ca lim na ca nuyoo nga xam ne suñ ci wax daa wax ne wa min al aadabi iyaadatul marid wa raduka salaam xus faridi wa amdu aatisin wa tasmiyatun yurat wa sadd fammin li tasaawubin bi yat nga xam ne ne bokk na ci ay teggin maanaam ngay seeti sa mbokkum jullit moo xam ne dafa tawat moo xam mbokkum jege jegeñaale la moo xam ne dangaa bokk ak moom ci meen wala ci deret moo xam mbokkum dëkkandoo rek moo dëkkal ba mbokk la moo xam ne da nga koo xam daal muy sa mbokkum jullit nga xam ko xam ne tawat na nga dem seeti ko loolu ci ay teggin la bokk ak itam delloo ab nuyoo mbokk yi li gën a ñàkk li gën a doon ñàkk teggin mooy nit nuyu la nga ñàkk koo fay loolu lu garaaw la ndax li ñuy wax ne nuyoo na la delloo ko farata la maanaam ku ne xam na ne farata dafa moo gën a diis moo gën a diis sunna diis jim diis moo tax fi mu ne bu la nit boo romboon nit ne ko asalaamaaleykum mun a ciel baa sax nga jëfandikoo aada jaar ci wu santam mun a ciel maanaam bu la fayut lu métti ci sa xol lay doon moo tax ñàkk delloo nuyoo lu garaaw a garaaw la ñàkk delloo nuyoo sax mën naa jur ak noonoo nuyoo ni mën a ni mën a tax ay nit euh, euh, juboo nuyoo ni mu mën a tax ay nit xamante nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala bi mu ñu bindee ne bind naa leen def leen ay góor ak jigéen ak i ay ay ay ay xabaayil waaye nag jubluwaayu lool yi mooy li taarafu ngeen ngeen xam ngeen ngeen xamante nuyoo mbokk yi dana waral xamante nit ki boo ko rombee saa soo ko rombee nuyu ko donte xamante wu leen waaye boo ko rombee danga ko nuyu bu yàggee dana lijjanti diw mi nu mu tudd ak nu mu sant ak fu mu dëkk kon xamante juddoo na te su xamante juddoo njëriñ mën naa judd waaye fi jamono toll am na ñoo xam ne kon xam kese la du la ñuy nuyu te bu fekkee ñi nga xam kese ngay nuyu kon ñi nga xam duñ dolliku kon ngir ñi nga xam dolliku baa li nga xam dolliku baa li nga am dolliku faaw ngay jéem a xam ñeneen te loolu nuyoo day waral ngay xam ñeneen waaye itam nit ñi da leen romb léegi nuyu leen duñ la tal ngir lan kenn ku nekk yaa ngi sëgg ci ci sa portable ba taloo fay nuyoo nga xam ne am na ñoo xam ne sa léegi tàyyi nañoo nuyoo ngir ñii mu leen nuyoo duñ ma fay kon loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la waaye teewul nag boo nuyoo moom buñ la fayul itam yow da am tuyaabay nuyoo waaye nag ku nuyoo nag nangay delloo ab nuyoo nga xam ne li Sëriñ Tuubaa wax ne waradu ko salaam xus farid yi delloo na delloo ab nuyoo yow jàppal sama way wii koo xam ne dafa tis li nga ko ndokkeel bu fekkee daa sant yàlla lañ wax nag na nga ko ndokkeel loolu ci ay teggin la bokk waaye itam booy boo bébbalee nga tëj sa gémmiñ boo bébbalee nga tëj sa gémmiñ mbokk léeg-léeg nga toog nit muy béb bébbali ngaa rek jëmale fu ngeen xamut dañuy wax nit ki su bébbalee ngaa gémmiñam iblis da koy ree mën naa tabbal jàngoro ci biiram kon bokkul ci ay teggin te mën na laa jural musiba kon nit su dee bébbali ci ay teggin la bokk daa war a jël kaalam taf ci gémmiñam baa mu jël loxo bitib loxo càmmoñam bii taf ko ci gémmiñam loolu mi ngi bokk ci al adabul mar yi ci teg yi ñuy gërëm la bokk waaye tam mbokk yi lii dafa bokk sax ci àq ji dox diggante nit ki ak moroomum jullitam wax naa ko léegi ci hadis boo xam ne abi xorayra moo ko ci moom lañ ko jëlee muslim nettali ko mu ne aqul muslim ala muslimi sittun nee na àq ji dox diggante jullit ak moroomu jullitam juróom benn la juróom benn yooyee ba ci jiitu mooy iza laqituhu fa sallima maanaam bun dajee boo dajee sa mbokkum jullit nanga ko nuyu boo dajee sa mbokkum jullit nanga ko nuyu foofu nag léeg-léeg iblis dugal fi ay pexem mooy diwu meema diwu meemay dajeel daal du nuyu waaye man su ma nuyu duma ko nuyu ëpp ma fulla ëpp ma fayda gënuma ndey gënuma bàyyi ma maam gënuma nangam waaye yow nuyu ko rek amaana boo ko nuyoo dana rus ba delloo la ab seen diggante jaar fa defaroo waaye boo ko nuyuwut ak rëy mën naa dox seen diggante ba seen diggante jaar fa yàqoo kon loolu àq la ju sa diggante ak sa mbokkum julit te baax mën na ce mën na cee sosoo waaye itam ak yàqute mën na cee jutoo waaye itam bokk na ci àq yi dox sa diggante ak sa mbokkum julli te loolu bokk ci ay teggin mooy wa isaa daaka fa ajibhu maanaam saa su la woowee na ko wuyu waaye ci lan lay woo mooy lan lay woo day fekk loolal nekk woote koo xam ne neex na sa boroom subhaanahu wa taala nit ki nag du luñ la woo rek nga wuyu ndax yellut nag ci benn doomu aadama muy topp menn mbindeef ci kaw merom yàlla kon lam la woo ay teggin la nga wuyu ko kon ñàkk wuyu ku la woo loolu ci ak ñàkk teggin la bokk waaye na fekk nag lañ la woowee mu doon loo xam ne lu neex sa borom la subhanahu wa taala waaye tam bu wa isan wa isastan saaka fan saawu maanaam bu sakkoo ci yow nga laabiire ko nga laabire ko nit ki bu sàkkoo ci yow nga laabire ko da ko war a dimbali laabire ko ca la sàkku ci yow ngeen nga laabire ko ca rawatina loo xam ne sax dafa jëm ci diine ndax ad diinu nasiha diine laayante biir la laayante biir eh, jëm ci lillahi wa rasulihi ak ci loo xam ne laal dafa jëm ci lu ci lu baax waaye itam dafa bokk ci yooyu wa itaati sa wa isaati sa fa amidallah fa sammatahu maanaam saa soo xam ne moom dafa li bu santee yàlla nga ndokkeel ko waaye sa aati sa faamilullah lañ wax de maanaam nit ku kon yow mi tissooli da ngaa war a sant yàlla waaye saa soo tissoolee ne cell ka nga lànga danaan cell waaye nag boo tissoolee ne alhamdulillah mu ne la yarhamukallah ngir ñaalante yaxfir lana wa lakum yuhdikum allah wa yasmu baalakum noonu ñu koy waxee lay tax loola am nag mooy yow mi tës loolu nga ne alhamdulillah moom itam mu ne la yarhamukallah ngeen di ko euh, dellawante seen diggante ci ñaan yu tedd yooyu waaye itam bu tawatee nga seeti ko loolu ay teggin la wax nañ ko léegi bu tawatee nga dem seeti ko nemmeeku ko ñaanal ko yàlla yàlla yëkkati ko ci tawat jooj yi loolu ay ci teggin la bokk waaye itam bokk na sax ci àqu jullit ak moroomam waaye itam bu faatoo nga dem topp ci ab dencam kon yii dafa ñëw ci hadis bi ba pare duggaale ci biir ay teggin yu dox ci diggante nit ki ak moroomu nitam waaye itam mbokk bokk nañu ay teggin waxoon nañ ko ci tàmbali gi mooy wa min al aadaabi istisaan maanaam bokk nañu ay teggin mooy maanaam ngay yëglu istisaan xabla duxulil xam la ndoxul fii bayti xayrika lu njëkk ngay dugg ci néeg boo xam ne yow du sab néeg waaw du sab néeg néeg boo xam ne moomoo ko néeg boo xam ne du sa néegub soxna yéen ñaar ñëpp bu ngeen dee dugg ci beneen néeg bu ngeen xam ne néegub jaambur la du seenub néeg walla comme mën a doon daal néeg booy dugg te moomoo ko da ngaa war a yëglu da war a yëglu bañ na la bismillah nga doog a dugg lool mi ngi bokk ci ay teggin nga xam ne jël nañu addis boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci abi Musa al ashariyu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa mu ne al istizaanu salaasa fa in uzina lakka fa duxul wa illa farja mu li ñuy wax daal istisaan nga xam ne bokk na ci ay teggin te sëriñ bi jàngale ko nee na booy dugg ci néegub jàmbur na nga yëglu na nga yëglu ah, ah, yëglu nag kenn ku ne sa façon ba ngay yëgloo am na ñoo xam ne la ñuy yëgloo mooy asalaamaaleykum ñenn ñi dañuy fëgg bunt ñenn ñi dañuy wax koŋ-koŋ kenn ku ne ak na ngay yëgloo waaye daal saa soo yëgloo rek ñu ne la bismillah wala aksil wala entrée wala ñëwal lépp xeeti wax la waaye lu la ci wax na nga xam ne am nga ndigal waaye bu fekkee da ngaa yëglu nag kenn newu la bismillah aksil su boobaa nee na farja na nga dellu nee ñetti yoon nag ngay yëglu ñetti yoon ngay yëglu bu ñee la aksil nga aksi bu ñee la dellul nee na nga dellu nga xam ne sax boo yëgloo sax mu leer la ne nit ngi ci biir fii waaye néewu la dara da ngaa yëglu rek mu ne cel su boobaa yow amoo sañ-sañu dugg ndax xamoo lan la nekk ci biir bërëb boobee waaye itam bu la nee dellul da war a dellu waaye nit ñi fi ne dañu ko safaane te ji boo ñëwoon ci néegub jaambur mu ne la nga fëgg ñu ne la dellul yow boo génnee la ngay njëkk a wax mooy diw de ku ñàkk teggin la ñu ne lu tax ngay dama dem këram di ko seet fëgg mu naan ma delloo ñàkku teggin yow yaa ñàkk xam te itam yaa ñàkk am ay teggin ndax xamoo ndax ci ban melokaan la nekk xamoo ndax ma ngay def lu ñuy nëbbu xamoo ndax ma nga làng ak ka mu nekkal nekkaaleem li soxnaam wala dara ci melokaan woo xam ne bugguñu nga gis leen su boobaa la mooy nga dellu waaye saa soo jëfee neneen nu dul noonu rek na nga xam ne jëfe jëfe jëfe nga noo xam ne bokkul ci ay ay teggin kon loolu itam ñu bàyyi ci xel baax a baax rawatina di ko jàngal suñuy doom am na ci xale yi yoo xam ne jàngaluñ leen teggi ni nu ñuy dugge ci néeg dañuy ñëw rek na saraax dugg xale bu bu jëfandikoo lool yi war nga ko wax ne ko eh, booy dugg ci néeg na nga fëgg bañ ne la jàll si li nga doo koo jàll si bu ñala la dellul na nga dellu buñ ne la bul dugg bul dugg waaye bàyyil du jékki-jékki rek ne sarax ci néegu jàmbur loolu bàyyi ko ba sa néegu waajur sax waru ko ci def loolu kon faw teggin yooyu ñu di ko delloo delloosiwaat di ko jàngal sunuy doom ak sunu njaboot ngir ñu man koo màggale sun ko màggale rek mooy tax ëllëg fun ñu ko jëfandikoo ci ñoom daañu xam ne lii jàngaloon nañ leen ko ndax yonent bi defoon na ko abdullahi euh, suma jumut ibnu abbas muy lekk rek di jël loxoom fu ko neex mu jëmale ko fa nee na yonent bi ne ko booy lekk na wax bismillah te nga lekk yam sa kanam te lekk li yàlla ci yow nee nee wax jooju dem naa ba doon mag saa su may lekk sama xel dem ci wax jooju te ba muy xale la ko ko yont bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la kon fa mu yar xale yi ci xeeti teggin yi ñuy wax ci nu ñuy dugg ci néeg ak nu ñuy ànde ak seen kilifa ak nu ñuy waxe ak nu ñuy jëfandikoo waaye itam mbokk bokk na ci ay teggin wa min al aadaabi afwul mar'i man zalama wa mislu ixtaahu man arama wasilatun li kulli shaxsin xataa wal birru aydan fantabi wa tabia wa yajibaani ya aqi fi raimi wa walidin walaw li shirk walam li shirkin yantami maanaam jéggal ku la tooñ jéggal koo xam ne daf lay tooñ ak itam jox koo xam ne daf lay xañ yaakaar naa jéggal ku la tooñ moom neex naa jàngale lool ci biir yoonu murit ndax ci xeetu jéggale li ci ñaar ñii def gisuñ ci taarix kenn koo xam ne def nga ci lu ni mel mooy ki yàlla yónni woon ci ñun mooy yonent bi sallallahu alayhi ak sunu yaakaar yi teeg ëllëg Serigne Touba radiyallahu anhu yonent bi keroog ba mu demee Taif ñu boole koog jigéen ñaag gone ya ak ñu ñàkk xel ña mu leen di woo ci lislaam ñu di ko sànni xeer ak di ko sànni doj ba naccal ab tànkam ba malaayka ñëw ci moom naan ko ñaanal sa boroom subhaanahu wa mu alak waa dëkk bi daf ne ko allahuma ixfir xaw xawmi fa innahum laa yaalamuun loolu ak njëggal la waaye itam keroog ca fatxul makka ba ne ku dugg ci kaaba gi raw nga ku dugg sa kër raw nga ku dugg kër abu sufiyaan raw nga loolu ak njëggal la rek ndax kenn mënta ñàkk dugg ci ñetti bërëb yooyu waaye tam sunu jàmbaar jii di Serigne Touba radiyallahu anu lu jege lu mat fanweeri at ci ak tooñ la nasaraan yi nekkoon ci diggante ci seen ci digganteem ak moom waaye bind na sax moom Sëñ Touba ndax dañuy wax ne afawut anil a'daa'i turran li wacci man waaye am na meneen mbind moo xam ne Serigne Touba ci boppam moo wax ne ki bind mbind mi li li tàmbalee fii mu ko bindee ba ba yemal am képp ku ko tooñ jéggal na la loolu na ko mbind mu leer kon jéggal ku la tooñ loolu bokk na ci ay teggin waaye jox koo xam ne daf lay xañ lu jafe la lool nag jox ku la xañ jafe na lool waaye bokk na ci li nga xam ne ay teggin la te nit nag xanaa lu mu doywaar waar waar lu mu yées yées saa su lay xañ nga di ko jox su dee nag nit la su dee nag am na lu mu yëg ci xolam ah bu yàggee dana nag fas yéene soppiku ah diw mii wax dëgg yàlla lu ñuy joxe lu ne ma koy xañ waaye moom lu ñuy joxe dana fexe ma am ca su boobaa nag dana fexe euh, soppiku kon loolu lay waral lool nag mooy. nga jëfandikoo ay teggin ca loolee ba loola mën a soppi waaye itam bokk na ci ay teggin mooy di jog koo xam ne dafay dog daf lay dog moo xam sa mbokk la moo xam rawatina mbokk ndax mbokk lu ñuy jokk la kon ki koy dog nga xam ne moom xay na li ñuy wax léegi bu la rombee du la sax nuyu ngir dogu mbokk. Assalaamy FM bu xewlee du la yëgal. du am dara loo xam ne daal lu muy jëmee fenn la ba jëmee ko ci yow kooku day doog mbokk waaye yow nag yaa ngi góor góorgóorlu ba boo ko rombee danga ko nuyu boo xewle danga ko yëgal boo amee lu jëm ci nit ñi danga ko ca boole boobaa yaa ngi jog yaa ngi koy jokk donte moom daf lay dog kon jokk ko nga koy jokk loolu mi ngi bokk ci ay teggin te yii sax day mel ni mi ngi bokk ci al aadabul mardi mooy teggiin yi nga xam ne teggin yuñ gërëm la lool lool lool lu jafe la lool. waaye itam baax ci sa ay waajur. donte sax sa waajur yooyu da nga leen dañ leen askane la ci ñi wooye ay musrikin waaye daal ñoo la jur waaye nag nga leen di yërëm ak rafetal jëme ci ñoom loolu mi ngi bokk ci li nga xam ne. ay teggin la waaye itam bokk na ci ay teggin mbokk yi mooy nit ki di yar ak njabootam wa minhu tarbiyatukul awlaad li kay baax baada rasat maanaam di yar sa njaboot ngir ñu doon ay nit ñoo xam ne nit ñu jub lañuy doon ngir ñu maanaam ak jub ndax daa bokk ci li ñuy wax yërëm ndaw daf cee bokk maanaam nga di ko bañ a dencal dara loo xam ne loo koy laabiire la ngir loole ëllëg bu ci bu ci bu ci tegoo mën naa doon koo xam ne ku juble lay doon kon loolu dafa bokk ci yërëm ndaw waaw farham saqira laa takun mudaqira anhu layaadan min nasiatin tura na nga yërëm ndaw li waaye nag ci kaw yërmaane ji mooy bul nekk koo xam ne danga koy dencal dara loo xam ne boo ko gisee mën nga ko caa laabiire ngir mu man koo jëriñoo teeg ëllëg waaye tam bokk nañu ay mooy nit ki di weg mag di yërëm ndaw waaye itam di def boppam ni mu def ni mu def boppam moo koy def moroomam loolu yi moom la suñ ci waa tàmbalee woon sax ci tarixatul adabi rahmatu saqir kal abbi wal ummi wa tawxiirul kabir nga xam ne yoonu teggin mooy yërëm ndaw comme yërmaane ji ko ndeyam ak baayam ëmbal waaye wekk mag waaye tam wa jaala mislika kanam si ka sawa maanaam ngay def sa bopp nga def sa moroom ni nga def sa bopp ngay def sa moroom sa sa moroom ni nga def sa bopp ndax fiha lahu rusdan wa waqil kabir walaw raaytahu daifan wa xaqir nga xam ne mag mi moom donte sax kii dafa doon koo xam ne danga jàpp ne dafa lompañ daif la wala dafa xeebu waaye ànd ak loolu yépp téewur lañuy la digal ci moom ci ay teggin mooy nga jox ko cër bi nga ko war a jox nga xam ne bu dee ku toll ni sa waajur la cër ba ngay jox sa waajur ci war ma doo ko ko doo ko ko jombale doo ko ko jombale doon de ko xeebu la sax ci ci gisin wala xultu wa minhu lutfu bi saqiri wa misluhu tabdilu lil kabiri xult sëñ tubaab xult damiram la mu ne bokk na ci ay teggin maanaam ñewante xale ak itam jox mag cër a tabdil lil kabir maanaam ki la mag te mat la kilifa ci bépp fànn koo kii nga jox ko cër moo tax bi muy dénk taalibeem bu tedd boobu di sëriñ da Abdourahman ci téeréem bu tedd boobu di fatxul manaan fii jawaabi Abdourahman téere bu am solo la boo xam ne sëriñ da Abdourahman moo sàkk woon ci sëriñ Tuubaa mu bindal ko ab dénk boo xam ne lu muy jëfandikoo la ci diggante ak boroomam ngir mën a gën a jariñu ci diggante ak boroomam Sëñ Tuubaa bind téere boobu yi tudde ko Fatxul Manaan fii jawaab fii jawaab Abdurahmaan Lo waxoon ko ne ko yaa ayyuhal muriidu kullu man kaana fawqaka fa akrimhu wa bajjilhu wa kullu man kaana duunaka farhamhu waltuf bihi wa kullu man mislaka fafxalhu misla ma tafxalu li nafsik hada axiru wasiya fa in istaamalta biha tanju fi daarayni wa tanal jami ma tatlubu fi dunia wal axira rasaxana allah wa iyaka xusna alxaatima amin bi jaayi mustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaay yaay hal muridu ay yow murid bi nga xam ne loolu yi yaakaar naa li ñu waxoon ci tàmbali gi képp ku di murit rek yaa ngi ci biir ndax li ñu waxoon lépp lu ñuy digle ci lu baax ba li ñuy tere ci ab safaan doon de kañ ko doon tere wëy na waaye yow mii dund jamono bi xam ne lii yow lañ ko digal baa yow lañ ko tere mu ne ko yow murit bi day képp koo xam ne daf laa kawe maanaam képp ku la féete kaw rek ku la mag ci gàttal nanga koy teddal waaye itam na koy màggal waaye képp koo xam ne dafa nekk koo xam ne daf laa yées mooy koo mag rek nee na nanga ko yërëm waaye itam na nga ko na am ci moom ñeewant waaye itam képp koo xam ne daf laa dafa doon sa sam kéem am sa morom la daal yéen maase mën ngeen a ànd ci at yéen a tolloo jamono nee na kooku na nga ko def ni nga xam ne noonu nii ngay def sa bopp ne ko lii daal mooy dënkaane bi mujj ci li ma la doon dénk ne ko boo ko jëfee nag danga nga mucc àddina ak alaaxira te da am lépp loo xam ne loo doon sàkku la ci àddina ak alaaxira yal nañ yàlla wërsëgal te wërsëgal la mujj gu rafet yal yàlla nangu ñaan ci daraja yonte bi sallallahu alayhi mi ñu tànn kon loolu itam lu am solo la loo xam ne sëriñ Touba moo ko dénkoon Serigne Abdou Rahmane Lo ci li ñu doon wax léegi rek ci yërëm ndaw ak jox mag cër ak ko koo tollool nga def ko ni sa bopp teggin nag mbokk yi mooy lu war lu war a mën a matale ci ñëpp ci ñëpp ndax mu xaatib ba ba muy waqanteeg doomam ni ko sëñ bi indee waxaala aydan zaibul wasiya muxaatiban li ibni lahu maziya ne ko sammir ila makarim al axlaaqi xaalis al amaali min annifaaqi al adaba al adaba summa al adaba wa huwa an tabura umman wa abba walhamma walamata wa aqal kabir wa sayqa inna sayqa bilbiri jadir wa kullu man sama alayka tukrimu wa kullu man saxuraka an anka taramu mu ne day ba muy waxante ak doom ja daf ko ne nanga nga na nga na wagu waaw jóg rek jëm ci li ñuy wax makaarimal axlaax mooy na nga jóg jëm ci jikko yu tedd te nga sellal say jëf ci li ñuy wax anifaax te mooy naafiq te waxoon nañ léegi ci tàmbali bi yonent na xiyaarukum aasinakum axlaaqa ki gën a ki gën ci yéen mooy ki gën rafet ay jikko ci yéen mu ne ko kon nanga nga wagu na jóg jëm ci sellal say jëf ak maka makaarimal axlaaq ne ko na xam ne teggin daal teggin ci boppam topp ay teggin waaw lu mu fedd la lu mu fedd li la al adabal adaba summal adaba nga xam ne bu ko waxoon benn yoon rek mu doy waaye dafa koo feddali ne ko na xam ne loolu lépp mooy nga baax ci sa ndey baax ci sa baay ne ko teggin daal teggin dëgg topp teggin mooy nga baax ci sa ndey baax ci sa baay mooy li la yàlla digal ci sa waajur ci say waajur nga def ko lim la tere ci ñoom nga maytu ko waaye nee ndax da nga yem ci say waajur mu ne ko déedéet nanga baax ci ku ñuy wax sa baay tax mooy koo xam ne sa rakki baay la baa sa magi baay la lu ma maanaam rek moom sa kilifa la waaye itam boo ci yem nee na baax ci say ka wax sa bàjjan ak ka ñuy wax sa mbokk moo xam ne moo la féete mag waaye ne na baax ci sab sëriñ waaye ne kan mooy sëriñ mu ne ko inna soyka bil birri jadir ab sëriñ daal mooy ka nga xam ne dafa yeyoo ak mbaax kon képp koo xam ne yeyoo woo jox ak mbaax ndax say jëf baaxut say wax baaxut su boobaa kookee duñ la wax ab sayxu dëgg daal ab sëriñ dëgg mooy koo xam ne dafa yeyoo ak mbaax ne ko képp koo xam ne daf la mag na ko teral képp koo xam ne daf la féete suuf na ko na ko na ko yërëm na nga ko yërëm kon loolu itam mi ngi bokk ci li ab jullit ab taalibe war a sàmmoo ci digganteem ak i ak i tegginam kon loolu lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax waaye itam bokk na ci ay teggin eh, min an ann min husnil adabi an turaxiya fi lxalqi aq xaaliqihim jalla wa maanaam ngay sàmm aqi nit ñi ci aq yàlla suñu borom subhaanahu wa mi leen bind nit ñi dañu ay àq ci yow àq yooyu yii nag dee ko sàmm di ko di ko di ko sàmmal sa boroom ci ñoom di sàmm àq ji dox sa diggante ak jaam yàlla yi kon day mel ni euh, mbokki taalibe yi mbokki jullit yi li ñu li li làmboo ci ay teggin yu nit war a jëfandikoo ci ak dundam bari na lool ba liñ ci bëggoon a jàllale lépp sax ci adabu zahir des na sax lu lu baree baree bari ndax day mel ni li waxoon ci tàmbalik émission bi ne euh, teggin daal daa mel ni daa xaw a nekk sax kaada yakun sulusuy diin daa xaw a nekk sax euh, gën boo xaajee dina ñetti xaaj benn xaaj ba lépp di teggin loolu moom lu wér la moo tax li luñ ciy wax rek dañuy wax rek bàyyi waaye du jeex kon ñu ngi leen di euh, jéggu lu baax di wàccee foofu sunu kàddu di ñaan yàlla lépp loo xam ne ay njuumte la ci biir wax ji ci luñ war a wax te waxe woon ko nan ko war a waxee loola ñu ngi koy jégalu suñu borom subhanahu wa taala di leen ko jégalu di ko jégalu Serigne Touba mi nga xam ne am njàngaleem dañuy nab nabi di ci jiima jàllale dara wasalaamaaleykum waaw waaw day waaw day mel ni waaw kon waxoon nañ euh, euh, dañu ubbi téléphone bi ci 33 943 48 28 bismillah kon waxoon nañ ubbi téléphone bi ci 33 943 48 28 bismillah waaw ñu ngi bu baax a baax. alhamdulilah. waaw ñu ngi sant Serigne bu baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah macha allah émission la. am na solo trop. tabaarkalla jërëjëf. jërëjëf jërëjëf macha allah. waaw euh, Seydina Ousmane ñu ngi lay ziare bu baax a baax nekk fii ci bërëb bi di borom itte lool di jàmbaar lool itam borom émission xam-xam ak xamle di wax lu am solo ci wàllu nu nit di def ba mën a jariñu ci dundam ci xeetu ñaan ak lépp rek ñu ngi koy ziare bu baax a baax kon bu fekkee am na ñu bëgg a tàbbi ci waxtaan wi ci dolli ci dara. ci lu ñu war a wax te waxuñu ko ndax li ñuy wax moom ku ne am na ci lu ci war a dolli ndax teggin moom liñ ci war a bind bind nañ ko mooy njàngaleem sëriñ bi ak alxuraan lim ci indeek hadis waaye nit ku ne itam léeg-léeg yàlla may la loo xam ne ci xer suñu borom subhaanahu wa nga xam ne lii ay teggin la nga nga di ko dolli sa mbokkum bi lu am solo la kon liñ doon wax léegi ci waxtu wi ne mm, egg nañ fi war a yëkkati jotaay bi waaye fin fin doon daanee suñ kàddu rek mooy nit kii di sàmm aqi nit ñi ci aqi aqi suñ boroom maanaam nit ñi aq ji dox sa diggante ñoom nga di ko sàmmal sa boroom subhaanahu wa taala loolu mi ngi bokk ci ay ay teggin yoo xam ne ku ne war nga ko bàyyi xel ndax nit ñi saa soo jalgati ci ñoom rek na nga xam ne loola àq la joo xam ne ëllëg suñ borom subhaanahu wa taala dana ko jël delloo leen ko ab jullit nag du def la ñuy wax jalgati ab jullit jalgati ci mbokkum jullitam daa war a sàmm aqi boppam waaye tam sàmm aq ji dox ci diggante ak nit ñi def sa bopp Muhammadu def nit ñi maamadi sa bopp rek moo la ñor sa jëmm kese la ñor keneen ñoru la saa foo yaa ngi ñi ak nit ñi yaa ngi suufeel seeni daraja yaa ngi suufeel seeni seeni seeni kii loolu lu mat a moytu la lu mat a bàyyi xel la kon bu fekkee euh, kenn amatul ku tàbbi ci ci jotaay bi ñu mën a yëkkati jotaay bi ba beneen dimanche incha allah ci seen émission bii di euh, maktabatu Cheikhul Khadim fii ji Assalaamy FM 99 point 0 Touba waaye tam Assalaamy TV waaye tam di jàll ci euh, YouTube bi euh, mboktaal bi képp kon ba nga ko topp rek boo defee Assalaamy FM Assalaamy FM wala nga dugg nga def Assalaamy TV lu ci maa doon rek incha allah di nga mën a topp waxtaan wi di ñaan yàlla nangul ñu te jéggal ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala